loolu bu deful loolu xoolal gars yi xoolal genre xeetu nit yi mel ni ku ñu xam nga mel ni ku ñu agrandir nii buñ ko wutalul combat mu bëri lu ne mën naa xew ci mim réew nañ ñu jàppale noo loolu yëpp ay sa sa sa loolu lépp xamante nañu ay mbalak la xam nga dañoo bëgg li ñu fi indi ñëpp prêter si attention déglu ñu bu baax xam ne ñun ay noble lañ ay nit lañ parce que boobu ba léegi ci làmb ba ba léegi ba corona bi amee ba léegi mosoo dégg benn mbër bu yëkkati parole wax wala mu kii toujours ñu ngi suñu coin nekk suñu ruq xam li ñu bëgg parce que tey ñoo gën a ñooy ñoobalu dëkk bi mbëri la ñu ñëpp di wër amul amul amul koo xam Macky Sall sax toog na fi tele ne ne ne ne ne ku sañoon jur mbër léegi nag loolu bu ñu ko yàqal ñu bàyyi ñu jëflante sumbante su yoonu Sokone dafa dama ko gën dama xool ndam ci làmb ji xam nga ne Balla Gaye bombardier ah Modou Lo Ama nga xam ne moo war a dekki làmb Papa Sow ak Siteu moo ñooñ dama leen a yërëm barki yonent yàlla moo xam ne dama leen a yërëm dama leen di ñaanal nag dama leen di ñaanal nit ñi jàppale leen parce que deseetuñu dara ay tafa mbër yi nga xamante ne nii ay 20 lañ leen jox ñooñu dee nañ barki Serigne Saliou loolu moo tax ñun ñun ñëpp looloo ñu fi indi tey. Salif xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kenn yenu ci moroom lu bon ñun ñëpp jàmm la ñuy wër ba fajar ñu naan bërigo xaaj soog ko tëdd du dëgg nañ ñu ngi lancé appel monsieur le président. Macky Sall Macky Sall Matar Ba. CNG bi na la tudd Birane. ndeysaan ñooñu. tey jii nii solution bi ñu soxla mu ngi seen loxo ñoom rek ñu mën a dimbali defal ñu lu ñu bëgg maa ngi wax nag ko deful